jipnya dam. Jipian. Budak no. Jangan lagi. Mana dia jatuh? Mana dia jatuh? Mana dia jatuh? Mana dia jatuh? jingen wa lu tan ke ka lu tan ni da ba ko ni je ko ni da ya ta ba ni ni ka sa ni da ni ka ti ne ko ni ne ko ti da ka ni ne ke ni ba ki ni ba sa gis ngeen fii jamono gi nga xam ne moom la ñuy wax ak yéen gis ngeen aussi li nga xam ne moo nekk di xew yéen a ko gisandoo aussi Dame Mbodj moo ngi fii moo fi nga xam ne jamono gi si juma bi nga xam ne moo euh, nekk fi nga xam ne mooy ci wetu tribunal bi en tout moo nekk di xew gis ngeen. Hmm. Hmm. même